ma ci les échos yéeni kaay duñu xamal ne réewum Sénégal kay jamono ji maanaam daal di borom këram ne mel tàmbali andil ay jafe-jafe moom mi nga xam ne daal moo ko daan cuqaaxaa lànk ne du dellu ca fi nga xam ne nag moo di jëkkëram ja réewum mu doon dëkk boo xam ne booy fajab tànk biir di metti ngay faj biir ndigg la maanaam daal Sénégal benn réew téeméeri jafe jafe-jafe jafe-jafe baax na bu ñu bàyyiwut yi de nawet bi dana yeex a nangu ba suba